yoo xam ne gis nañu li président liggéey fii ci réew mi ñu ñu namoon bëggoon moom mu wéyal ko donc léegi nag comme ni ngeen ko xamee moom ci boppam ñun suñu bëgg-bëgg lañ doon lañ doon lañ doon doxal am aussi fi ñu ko tegoon fu leer léegi nag tey moom gis nañ ne moom nee na du engagé wu loolu ñu koy rafet lu bu baax a baax a baax donc ñu ne nag naka la ñu mën a def pour que liggéey boobu ñu doon def naka la ñu ko mën a wéyalee loolu moo taxoon tey ñu daje fi li mu wax loolu moo am moom aussi loolu la wax mooy opposition wu plateforme bi nga xam ne moom moo ko jiite. ñu ñëpp d'accord nañ ne tey liggéey boobu dañ ko doon def pour euh, Sénégal euh, liggéey bi mun ko wéyal comme ni mu ko tàmbalee tey nag moom ci boppam delloo nañ ko lépp ci choix bi nga xam ne war na ko mën a def donc choix bu mu def rek ñun pare nañu pour wéyal liggéey bi ak ak choix boobu ndax euh, Sénégal du yem ci tey du yem ci 2024.